mbokk yi asalaamaaleykum jërë ngeen jëf ci ànd bi ak réew mi FM dal nag jàmm ci seen émission démb ak tay ni ñu ko baaxoo dimanche bu jot ci waxtu bi tey nag euh, dañuy waxtaanee ku Sénégal ameel njukkal xam ngeen ni ñu ngi ci weeru avril weeru avril nag ku ko wax sa xel dafay dem ci indépendance bu Sénégal màggal nañu ko 4 euh, avril ci ndorteelu weer wi euh, ku ne itam indépendance sa xel day dem ci kàngam yu mel ni président Mamadou Dia moom la ñuy waxtaanee tey am mbégte nag dalal ci ku jëflante ak moom bokk itam ci partem bi di MSU euh, mouvement pour le socialisme et l'unité euh, sëñ bi Mamadou Diouf consultant en économie euh, rurale kon nga bokk ci parti président Mamadou Dia boobu mu fi bàyyi ni ma ko waxee nga jot jëflante ak moom ñu war ko waxtaanee war a waxtaanee itam gis-gis bi mu amoon ci Sénégal ak fi mu toll tey rawatina ak ci wàllu mbay ñu jàpp ne mbay moo war a tey bokk ci li yëkkati réew mi ngay kàngam ci loolu itam dana ñu ci wax ak ni administration yi doxee jamono jamonoy président Mamadou Dia ndax yëf yi nii la daan demee loolu yëpp daanu ko waxtaanee sëñ bi ma Mamadou Diouf ñu am mbégte dalal la eh, ci plateau Demb ak Tay bismillah salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu waaleykum salaam kontaan naa ci mhm. li mu def ci réew mi dafa baax dafa rëy mhm. Mhm. moo tax moo tax ah wax dëgg yàlla wax jàmmul dañ ci tëgg li ñu xam Mamadou Dia kilifa la woon ci réew mi hmm. borom xam-xam doon jàngale jàngale école ku jàngale école hmm. nekk major de sa promotion jàngale école nekk institut bu mag ci réew mi eh, rax su dolli yàlla mu dara teewul def ko ji jiiti réew mi topp ci samoon nekk premier ministre hmm. président du conseil du gouvernement ci réew mi Sénégal ah Mamadou Dia nag koo xam ne la woon vraiment yàlla baaxoon na ko mayoon na ko xam-xam jox na ko mënoore goo xam ne ah dem nekk na ci réew mi liggéey si liggéey bu mag ba mu ñëwee li mu njëkk a def mooy dafa soppar ñi économie réew mi koom-koom bi xam ne ah dafa soppar ñi hmm. dafa fekkoon suñu maam yi nekkoon ci di béy suñu béykat yi maam yi béykat yi nekkoon fii hmm. di béy ah wax naan di béy di jaay di jaay société yu mag ci ci ci ci ak tubaab yi ah bi fi nekkee bi fi nekkee aussi xam ne léegi ni war na ko sa fon ni war na avancé war na génn ci béykat yooyu li ñu naan li ñu mënoon mu njëkk ba économie de traite économie de traite mooy dañ naan béy ba ba góob wala ñu gerte dem jaay ko ci boutique yi ah, fekk ne bu nawet jotee dañ la daan lebal ay ay ay yu kenn xawul. jiw. Mm. waaw ah dinaan nawet jiw lebal leen bi ñu jëfandikoo ak yooyu bu ñu liggéey ba pare ba nawet jot ñu jël li ñuy doon leen loon lebal li sa des ñu jox leen ko lu néew loo xam ne duñ ci mën dundee. Mm. loolu mën ne ko économie de traite bu njëkk ba. ñu la ko mën a waxee. waaw ñëw ne léegi nag loolu affaire njaam la espèce njaam la. Mm. da koy dindi. bu mu ñëwee mu créer mu créer ce qu'on appelle mouvement coopératif ndax lu ko créer dafa jël xëy suba def un de décret décret bi ngay dégg ñu naan décret décret euh, secret trente deux mm-hmm. la bind la bind ci réew mi mm-hmm. bu ñu ñëwee bind secret trente deux secret trente deux moo créer DNDS OCA CRAD mm-hmm. CRAD CRAD mooy centre régional de développement. Mm-hmm. BRD xam nga ko mooy banque de développement. banque nationale de développement. Mm-hmm. waa du Sénégal créer animation rurale pour ñu mën a jàngal béykat yi naka la ñuy économiser naka la ñuy defee. Mm-hmm. Euh, coopérative. jàngal leen koom-koom daal. waaw jàngal leen koom-koom animation rurale. bu ñu ko defee bu bu créer encore OCA. OCA moo nekk foofu moo fi jënd gàncax gi di jënd gerte gi mooy office. office de commercialisation de commerce de commercialisation agricole. Hmm. yaa may dégg rek. waaw donc ko créer ñu créer coopération créer agent coopération créer ay nit yoo xam ne ñoo di encadrer béykat yi. Hmm. loolu li ñu si jublu mooy dafa buggoon par exemple nit ñi comme ñun Sénégal la ñun te te Sénégal vraiment socialisme dafa dafa ancré woon ci réew bi nga xam ne l'islam ko fi indi. Hmm. nit ñi socialisme mooy di mënante suñu biir gérer la ñu moom gérer la ñu bokk kenn lañ ñoo naxati mooy coopérative bi c'est le mutualisme mutualisme mooy ñu ànd liggéey ñàkk jariñu mooy loolu mooy mooy li li Serigne Touba def li suñu baax ñu baax ñu mari ñoom ñen dañuy ñàkk jariñu mhm. islam def ko mhm. moom la fi indi woon moom lépp lu mu def ci ci islam doon te daf ko jàng. Mm-hmm. xam nga mooy économiste la. Mm-hmm. mag la woon. boo mm-hmm. xam ko defee ñu ñëw vraiment ñu ñu loolu yëpp ñu sos ko defar ko ba mu baax nit ñu commencé liggéey ñu coopérative. baykat yi gis nañu seen bopp ci ci tëralin wu bees woowa. voilà baykat yi gis seen bopp ci tëralin wu bees yi. bu ñu jaayee bu ñu bu ñu béyee ba seen mbay ñor. ñoo jaay ko jaay ko ANCAR mm-hmm. bon bu ñu toogee ba xam bu soxla nañu jumtukaay ñu dem BNDES BNDES lebal leen ñu jënd jumtukaay di fay ñu leen di lebal juum ñuy fay mm-hmm. di liggéey seen bopp am président di gérer seen affaire bopp mooy autogestion mm-hmm. autogestion mooy loo moom di ko gérer sa bopp loolu la ñu wut ja kenn bañ loru ko mën a waxee quoi ci gàttal. Mm-hmm. waaw xaw ma ndax wax naa ko. baax na leer na nañ kay. bon loolu la indi woon. Mm-hmm. ñu ñi di béy di jariñu di di jariñu. Mm-hmm. loolu la fi mu indi woon. wax dëgg yàlla. bu ko defee boo jëlee jaay sa sa loo ñu fay la ba pare. bu bénéfice bi ñëwee ñu delloo si la bénéfice bi lu fi amoon ñu ristourne loolu muy ristourne maanaam di nga jaay dañ la koy delloowaat. jëf la ci bénéfice da nga jaay ba pare nga am li nga am ba pare ñu indil la bénéfice jox la ko. loolu muy risque loolu dafa indi woon. ñu ci dem gën di jaajëfal ngay ñu fi ay ay ay ay jumtukaay yu bari wax dëgg yàlla indi fi Sodeva. Hmm. indi fi Sodeva mooy ñoo xam ne dañ jàngal béy jàngal leen li ñuy béyee di def semence ak yooyu yëpp loolu la fi indi woon. Hmm. indi fi jumtukaay yu baax. di béy di liggéey di ñàkk di jariñu ñu gis seen bopp. Hmm. ah loolu nag neexul neexul woon nag ñu bari. neexul woon neexul woon commerçant yu bari neexul woon ñi fi nekkoon neexul woon tubaab yi. ndax ñooñu dañ doon dund ci kaw baykat yi. voilà tubaab yi dañ ci nekkoon di indi di di jënd gerte gi indi si ay naar def lañ ci àll bi ñu ñuy ay traitant ñu si ay ñuul ñuy jënd gerte gi di leen nax di di leen defal lu kenn xamul quoi neexul woon man. Hmm. Eh, tubaab bi nag xam kii mu def nii li muy def nii du intérêt. ah ñu ànd ak ñoo ñoo xam ne du leen tudd ci réew bi ah xeex ko xeex ko pour jóge fi lii la Mamadou Dia. nu nu ko xeexee nan la nu ko xeexee. dañ ko xeex sur le plan politique jëlee ko fi ko fekk ak ndax mën nga noo mën nga noo mën nga noo joxoñal ay ndëgg sërëx yoo xam ne lii wóor na ni dañ ko koo lalal euh, te te ñooñu la jóge preuve bi mooy dañ ko dañ wax Senghor na ko Mamadou hmm. Dia dafa contre dafa contre réew mi dafa nangam boole ko tubaab bi hmm. ne Mamadou Dia dafay dafay dafay jàq dafay def nangam dafay def nangam boole day boole boole daal da ngeen leen hmm. boole daal jaxase leen daal boole ko së voilà jaxase leen boole leen sëriñ si ñi ko ñi ko eh, ñi ko def nag ñi ko def nag xam ne xam nañ leen du luñ tudd am nañ ñoo xam ne ñoo nekkoon di di di di chef de canton yooyu. Mhm. ak yeneen ak yeneen ak yeneen politiciens yu mag yi. Mhm. ak tubaab bi ànd tubaab bi ànd tubaab bi ñu xeex ko et eh, boole mooy indi li ngay dégg ñu naan eh, eh, coup d'état la te du woon coup d'état. ñun mhm. ñu amul woon intention def coup d'état ci réew mi intention yëpp yëpp mooy liggéey réew mi développé ko indi nit ñi ten bopp ñu gis seen bopp ci réew mi mën a liggéey réew mi développé jox yokkute la indi wala ñu indi ci mhm. waaw ah, xanaa moom bañ koy lalal pexe yooya yëgu ko ah am na am na ñu ngi ci yëgoon nag mais daf ko yëgoon un peu tard quand même mhm. parce que dafa gëmoon yàlla d'accord moom ko gëmoon yàlla la dafa gëmoon yàlla yëg na ko waaye dafa bàyyi ah. noonu rek ne lu yàlla def baax na waaw waaw voilà voilà dafa bàyyi noonu nee na ginnaaw loolu la te man te man mënu ma xeex ak ñëpp mhm. ah nañ dem rek ñu xeex ko xam nga ko ñu bëgg a xeex rek waaw waaw alors euh, ah. kooku mooy Mamadou Dia waaw. kooku mooy Mamadou Dia. Mhm. Mamadou ku baaxoon la. ku mhm. jullite la ku amul diine la. Mhm. ku baaxoon la ku bëggoon réew mi la. bon ci ah. wàllu politique waaw boo ñu loo ñu mën a wax ci jaar-jaaram la na ko ci dugal yan jéego yu am solo la ci def. voilà wàllu politique. dafa nekkoon jàngalekat bu mag ca génne école normale bi ñu nekkoon ci nekk major de sa promotion bu mu génne mu nekk jàngale bu mag yóbbu ko Fatick Senghor di ñëw Fatick waa oo ko ne ko Senghor day ñëw dañu bëggoon district bi ñu defal ñu recevoir Senghor maanaam ci biir bataaxal mm-hmm. mag mm-hmm. présenté ko Fatick présenté ko Senghor Senghor ne ne ci kan nekk ci day moo fi nekk di directeur de ko jàngalekat la mm-hmm. borom xam-xam la Senghor fexe ba xëcc ko ci moom mu bokk ci partem BDS bloc démocratique sénégalais mhm. mu bokk ci ànd ak moom yàlla ñu dara tëwul boole leen boole leen ñuy liggéey ah ñu dema dema dema sam dem ba Abbas Gueye xam nga Abbas Gueye ah. suñu maam Abbas suñu papa Abbas Gueye mu fi nekkoon député mhm. moom fi jógee Abbas Gueye nekkoon Dakar fii kilifa woon Dakar bu mag fii mhm. Dakar buñu fi jógee nekk député ànd nekk sénateur dem France bu ñu demee France xam xamam ci économie bi dem mu dem jàngi économie amoon na tubaab yu mag yu fi nekkoon ñu borom xam-xam yu rëy en France Pierre Lebrun dégg na turam mhm. moo defoon premier plan Sénégal Desroches ak François Piri nekk xaritam jàngalekat yi économiste yi ñu sës ci ñoom jàng économie ba mën ko mhm. jàng ko économie ci xam économie mm-hmm. l'économie appliquée mooy moo tax mu créé ENEA. Mm-hmm. école nationale d'économie appliquée mm-hmm. looloo tax mu mujj a créé ko. bi nekk ci Wakaam économie appliquée. voilà léegi da ngay jàng da ngay jàng économie dem appliqué ko ci àll bi. ñu ñëw jàng def école nationale d'économie appliquée ci la ñëwee nag xam-xam moom màcc ci loolu moom moo tax mu créé li ma la li ma jëkk wax nii. coopérative yi ak ak développement. a ah, def si créé tam de créer réew yi conditions yoo xam ne dina ko yokk. donc loolu moom moom du jàll loolu mooy politique moom du jàll. Mm-hmm. moom politique yëpp la woon. nit ñi nekk benn jaamu yàlla nekk benn jël seen alal di liggéey bokk di liggéey ñàkk jariñu loolu moo doon moo doon moo doon doctrine am moo di autogestion. Mm-hmm. lan moom nga mën ko gérer. Mm-hmm. loolu mooy politique moom du jàll. alors parti bi mu fi bàyyi tey yéen ngeen yore ko euh, muy euh, MSU mouvement pour le socialisme et l'unité kañ la ko taxawal ak kañ la yëg ni euh, war na taxawal parti lan waral mu mu taxawal ko. ba mu amee tolof-tolof ak ko. Hmm. yóbbu ko fi ñu ko yóbbu Kédougou. loolu am na ko jàng yóbbu ko Kédougou. Hmm, hmm, ah yàlla mu dara teewul. génn ko ci mu ñëw retourné en cent en quatre vingt six ci la créé le mouvement pour le socialisme et l'unité hmm. mais li ma doon def li ma créé woon di ko def hmm. bëgg yooyu ñu dox lenn rek sewoon nag baal naa ko lépp man juddit laa hmm. waaye lenn laa ko mooy la ma tëraloon ci dox réew mi pour réew mi mën a jub jaar ci yoon. Mhm. laa ko mënul baal moo tax ma créé émission bi pour mën a continuer la ma doon def bu ma yàlla dimbalee. Mhm. nit ñi xam ne lii laa doon def. Mhm. moo tax ma créé le mouvement pour le socialisme et l'unité pour teg Sénégal ci yoonu yoonu yoonu am-am yoonu koom. ñu taxaw foofu tuuti papa kon kon Senghor ba mu ko jàppee yóbbu Kédougou la fi Mamadou Dia tàmbali woon yëpp ci wàllu mbay ak wàllu suqaliku lépp da koo teggi teg leneen. ndax dafa teg indi leneen teg ko. Mm-hmm. maanaam indi socialiste moom socialiste la woon sax quoi mais li mu mën a jot am na yoo xam ne da ko ci teg loolu mën na ko mu mën a jot. waaw mais mais da doon dox réew na ba mm-hmm. léegi nag réew mi nekk na socialiste. Mm-hmm. parce que Senghor socialiste la moom. Senghor socialiste la tamit. waaw te Senghor bokk na ci liggéey nag. ñu doxal ak Senghor ñu liggéey ñu sa Sénégal Senghor bokk na ci. waaw ñu liggéey rek na loolu la waaw loolu moom dëgg la. loolu dëgg la moom loolu dëgg la parce que parce que nag yàlla. mooy mooy mooy nit yàlla mooy taxale. dëgg la. boo mun jeex xam nga loolu. est-ce que jullit la. gëm na yàlla gëm na yonent ba te te te tijaan akal la yàlla la. waaw loola itam ku ñu ku ñu ku ñu jox kàddu ngir nga seede ci moom loola bokk na ci lii ciy gën a fës xëy na daanu ci gën a dikk ci kanam tuuti ñu ñëwaat ci parti bi di yi kon bi mu ko taxawalee bokkoon na ci jubluwaayam xëy na bés ñëw mu yor réew mi waaw waaw mu ñëw di def campagne am di def politique am yàlla def na bu dem bu dem présidentiel en quatre-vingt-six eh, yàlla antiwu ko hmm. mais réew mi ci continuer ñu am maanaam ñu am solo yor parti bi li ma ci xam mooy euh, ñu ma ci xam mooy ñoomin euh, Tidiane Ba mm. économiste mag la woon mm. mag la woon mm. yàlla na ko yàlla yërëm Mamadou Bamba Ndiaye nekkoon na fi Massène Niang Massène Niang ñu ngi koy nuyu au waaw waaw ñu ngi koy nuyu au passage mm-hmm. fi yor parti bi yor bu rafet mm-hmm. wax dëgg yàlla mm-hmm. ah léegi mag la. Mhm. mag la léegi. bu ñu këram jàpp mujjee gisee ak moom rek mag na te daanaka léegi mu léegi mu jege waaw at yi eh, xaw naa takk lool. Eh, waaye ñu ngi koy eh, nuyu bu fekkee mi ngi dégg. Ah, bilaay ndeysaan ñu ngi ko nuyu di ko ñaanal yàlla. Mhm. ah di ñaan mu fan bu gudd. rafet mhm. bu yaram. vraiment ah. nit yoon parti bi yoon bu rafet. moom mu demee demee demee demee demee demee demee dem ba mag jàpp ko. mu d'accord mu jël xale tef teftal ko ci moom. mu nekk grand Maodo parce que dañu am yoo xam ne dañu grand dañu naan grand Maodo lañu quoi mm-hmm. Maodo. ci mm-hmm. ci ci couleur. mooy kilifa. Mm-hmm. bon ñu ñu namee si coordinateur bu bees. te moom itam dañ ko daan woowee le Maodo Mamadou Dia. waaw Mamadou Dia mu doon Maodo. léegi nag fu Mamadou Dia toogoon. fu Mamadou Dia toogoon parce que dafa toog. xam nga dama la. waaw. comme comme nekkoon. parce am na nag. après après grand Maodo am na nag coordinateur national. Hmm. coordinateur national boobu moomu mooy Mouhamadou Abdoulaye Ba Gayel avocat la. d'accord moo doon rakk moo rakk Tidiane Ba mu la waxoon léegi Tidiane Ba. d'accord waaw. rakkam lañ fa tagaat mu nekk coordinateur national. Hmm. Gayel Mouhamadou Abdoulaye Ba di Gayel. Hmm. met met la avocat la mu fii ci dëkk bi. Dakar ñu yor ko ah ñu liggéey. ñu def li mu liggéey di ci. mais nag ñun suñu parti dafa am lenn. Hmm. moom yaa ngi wax naan moom dafa ñu yoroon comme doomam ay doomam. Hmm. nañu jaamu leen yàlla yor parti bi liggéeyal Sénégal. Hmm. bu leen def mukk yëpp ñàkk fayda bu leen def yëpp mukk yëpp saraxu ak yëpp bu leen ko def. gëm leen yàlla toog liggéey liggéey Sénégal yàlla tax boo leen ko defee yàlla dina ñëw. yàlla ñuy maye day maye. ah ne leen may li mu leen di may ne leen teg ngeen am dignité. am ngor am tranga mhm. am sutura loolu am na solo kon moom dafa doon dafa doon préserver ay valeur à travers émission voilà hmm. moom moom moom kenn mos ko yàq hmm. na yàlla daawul def lu ñàkk fayda da daan jaamu yàlla yàlla mag la wax loolu la ñu loolu la ñuy wax ñu moo tax ñun émission doo dégg mukk émission pure ku nekk émission di def yenn yi quoi yenn yu suufe yi ci politique doo ko dégg mais parti bi lu tax déggatuñu ko ñu bari daanaka sax fàtte woon nañ émission yi fan ngeen nekk ci lan ngeen di dox lan ngeen di yëngatu. non mu hmm. baa ngi yëngatu ba léegi mu ngi fi parce que parti bi aussi parti bi membre bi membre bi benn a ngi ci yéen bokk yaakaar. ba léegi ñoo créé ñoo créé benn bokk yaakaar. waaw parti bi ñoo créé parti bi depuis CPC. CPA ci kër daan soxo ak Front Siggil Sénégal ba benn bokk yaakaar parti baa ngi fi. dañu potentiel la def naa fi plus de vingt ans. Mhm. ñu ngi ciy yëngatu. comme naata sax mu ngi yëngatu ñu ngi ci yëngatu ñu ngi def ci ré réunion yooyu. Mhm. c'est que bruit yi ni ñuy def yenn yi. ñu mhm. def ay indi. te ñun yooyu duñ ci dugg ñun li ñuy def rek c'est sincère. loolu mais mais est-ce que fulaal nañ leen ci biir Benno Bokk Yaakaar ndax déggatuñ leen dégguñu kenn ci kilifa yi ku yore benn responsabilité wala di liggéeyal réew mi ci mm-hmm. benn benn pàcc ñu ne kii ci yi la sokkee ko man de gisaguma ko ah si parce que mm. waaw conseil régional coordinateur nekkoon na conseil ok au conseil waa nekk na conseil régional. Mhm. d' abord. Mhm. nekk na fi conseil municipal. d' accord parce que bu lu ko cër quand même. d' accord mu ngi HCCT. waaw waaw mu ngi HCCT. d' accord waaye yéen a ngi gis seen bopp ci xëy na yéen bi ngeen amoon ci liggéey réew mi ñu ngi leen di. may ngeen ah, doxalee yëg na yéen a ngi servi réew mi ni ko ni ko président du Dia bëggee woon. waaw ñu dem réunion bu ñu amee bu ñu amee jot dañuy bind këyit bataaxal. te hmm. leen développement développement lii la nangam la ñu soxla nangam la ñu bëgg nangam la ñu yéene mu doxal réew mi. est que ñu ngi leen di déglu ñu ngi leen di déglu di ah, doxal. ça dépend rek en tout cas ñun wax ñu dégluwoon nañu wax ñun dégluwoon wax. d' accord euh, ñu des ci MSU ba tey est ce que euh, ndax ku wax parti politique wax massification wax yaatal wax ay ay activité est ce que yéen a ngi yëngu ci yooyu parti bi ndax mi ngi yaatu ndax nit ñaa ngi adhéré est ce que surtout jeunes yi ñu ngi siy gis seen bopp. parti bi daaw lañ def congrès congrès bu mag lañ ko def daaw. Hmm. ko defal ci salle de délibération mairie hmm. def congrès bu mag yëpp ñëw Sénégal yëpp ñëw ci lañ fal. Gaël Ba ma lay wax nii. waaw met ba. Mm-hmm. liñ ko fal coordinateur national. Mm-hmm. def ma seen grand Maodo. Mm-hmm. waaw parti bi jaati na trop Sénégal yëpp am nañu am nañu représentant dans toutes les régions dans tous les départements. Mamadou Dia dafa Mamadou Dia dafa organisé woon partem. waaw ba Fouta sax la gën a am doole Fouta. d'accord ñu ngi ñu ngi leen di gërëm di nuyu mbokk mbokk yi alpulaar yi Mamadou Dia yi. bu la Fouta gëm nañ ko. xombal partout dans les régions gëm nañ moom du jàpp ñu baax ci Sénégal yëpp boo dem dañ war warmaal gëm nañ ko war baax bu yàlla mhm. parce que daa ngi dox daa ngi dox na ñu ay jeunes am nañu ay xale mhm. yàlla a des jeunes qui sont très mhm. euh, am nañu ay étudiants ENEA am nañu étudiants université am nañu ay jeunes yoo xam ne gëm nañu moom du ja gëm nañ ne lii buñ ko doxalee la mu waxoon buñ ko doxalee Sénégal dina développé dina baax loolu tey lan la président Macky Sall di doxal loo xam ni gëm ngeen ne lii bu fi Mamadou Dia nekkoon nii la koy defee. Macky Sall dafa nekk continuité Mamadou Dia ñun xam ne loolu. Hmm. waaw continuité bi mooy. Hmm. mooy. Hmm. dafa créer position au Sénégal wan li Mamadou Dia deful woon moom ak Macky Sall na ko. parce que Macky Sall na ay conditions de développement au Sénégal. créé na ay infra créé na ay infrastructures d' abord sur le plan économique infrastructure yoo xam ne. ñu ngi koy jëfandikoo pour le développement créer na infrastructure sur le plan culturel et sportif bu yàgg rek la ñu euh, inauguré arrêt ah, euh, euh, lañ def la ñu inauguré stade bu mag au Sénégal mu créé arena arène de basket créé ay conditions mu ngi defar stade yi mu ngi defar route yi mu ngi defar goudron yi mu ngi defar pont yi loolu mooy développement parce que bala ngaa développé aussi da ngaa am jumtukaay jumtukaay yi mooy loolu route yi yëpp yëpp tout yooyu mooy développement hmm. boo amee jumtukaay da nga sugal liggéey ñàkk def li Sëriñ Tuubaa waxoon am na maam Alaaji Malick mm-hmm. ñàkk jaruñu da ngay am da ngay am jumtukaay yoo xam ne da nga ci ñàkk jaruñu mm-hmm. réew moom moom bu la moo baax moom da nga liggéey rek mm-hmm. ay yooyu wax yëpp dafa caaxaan liggéey rek def li suñu ba maa yi bàyyi woon maam Alaaji Malick ak maam Sëriñ Tuubaa ak maam ak Alaaji Ñas Cheikhul Islam ak ñoom ñoom ku ñu juum ñooñu liñ fi bàyyi woon liñ ko toppee dañuy développé bu soo yàlla gën tam incha allah alors loolu moom Macky Sall nga koy def Macky Sall ngi def loolu. Mhm. d' accord wàllu mbay mi ndax wax naa ko ci ndoxteel Sénégal tey fi mu toll àddina sax laay wax ñëpp nangu nañu ne am réew moom balay dem faaw mbay mi suqaliku bu baax a baax euh, président mu Mamadou Dia itam ku ne xam fi mu tegoon mbay. wax nga sànq bi mu yegsee ci bopp gouvernement bi mbay mi la njëkk a jublu euh, soppar ñi économie bi euh, suqaliwaat lu baree bari ba béykat yi tàmbali cee gis seen bopp est-ce que tey président Macky Sall ni mu yoree mbay mi ak mbayum Sénégal ni muy doxee euh, jàpp nga ne dëppoo na ak li président Mamadou Dia bëggoon ba tàmbali kaa def. mais xam nga li Mamadou Dia defoon bu njëkk bi socialisme bi am na mbay maa ngi dox parce que aussi bu njëkk ba bu njëkk ba dañ daan béy dañ espèce familiale nit ñi danaan béy comme seen famille di béy di dundee di jaay. di kii mm-hmm. yooyu. Mm-hmm. ku nekk di béy la muy dundee voilà léegi actuellement ni réew mi doxee ak ni réew mi àdduna bi yokkoo mm-hmm. dañuy ñaan yàlla sénégalais di béy béy bu gën a mat loolu di béy dundee par ñuy jaay ci àll bi di jaay ci bitim réew yooyu. mais ñun mais ñun sore nañoo autosuffisance de Pape. waaw waaw autosuffisance dinañ am. yàggaguñ ko de parce que ceeb bi ceeb bi lañ waxoon autosuffisance 2017 te boobu ba tey jotaguñ ko. non bi. Hmm. ceeb bi boo gisee ñu freiné mooy événement yi xew rek yi xew tolof tolof yooyu mais ceeb bi yokk na bu baax nit ñi ñuy ci ceeb léegi bari na. bari na waaye matul eh. autosuffisance bi ñu digaale woon. waaw d'accord mais dina ah. ñëw autosuffisance day ñëw. dina ñëw tellement xam lu koy indi. Hmm. indi ñoo naan la toujours ne la. économie mu jumtukaay rek. Mm-hmm. bu ñu joxee béykat yi jumtukaay yi ci war jox leen jiw bu ci war jox jumtukaay boo xam ne nañ mën a béy ay hectares yi hectares. Mm-hmm. ah autosuffisance dina ñëw. bu ñu bu ñu ci mbéy exploitation familiale ah luñ dund rek la ñu mën a béyee. Mm-hmm. mais léegi dañuy am ambition jox leen matériel jox leen jumtukaay yu doy jox leen engrais jox leen yëpp ñu mën a béy lu bëri lu mag ñu am ñu dundee ba pare mu des ñu jaay loolu mooy autosuffisance alimentaire. te defe naa ne. Euh, président Macky mu ngi ci créé le ministère de l' agriculture. Mhm. et et de rural. Mhm. li ñu def ci réew mi ci équipement ak ci semence ak ci matériel bari ah day ñëw nag au fur et à mesure mhm. réew nag réew nag xëy rek développé. waaw loolu dëgg la France ak day dégg na trois cents ans ña ñetti téeméeri at. ñetti siècle trois siècles soo ko développé. développement dafa dafa yéex. Mhm. mais nag ñu rek nit ñi nag bu ñu yàkkanti. Mhm. yàlla moom yàlla. waaw ku xam président Mamadou Dia itam xam ko ci rigueur euh, administration na mu doon doxee ca jamonoom euh, wuute na ak tey ni muy doxee euh, lan nga jàpp ni xëy na bu fi newoon dana ko soppar ñi. parce que Mamadou Dia président bu ñëwee. Mhm. liggéey la indi teg ak rigueur. rigueur boobu mu amoon xam nga rigueur bi lu ko joxe. Mm. xam nga xam nañ ne boo boo amee diine yenn saa yi. am lislaam gëm yàlla gëm yonent ba da ngay hmm. da ngay gëm yàlla. Hmm. mën a liggéey rigueur loolu moo tax mu amoon rigueur. mu mun président Modou Dia daan toog bu six heures du matin lay yeewu dem building taxaw. Hmm. ngir contrôler jiitu ko ko génn. xam nga loolu dégg nga loolu. ñuy gën di contrôler ñuy ko génn. xam nga si boo xam ne dafa xëy suba ne bis kenn geraw taluñu ko ñu ngi suba commencé. <laughs> lii mu dàq léegi ci transformé leen dégg nga loolu. bon mm-hmm. mu organiser administration organisation bu rëy créer ministère créer finance boobu ñu ngi soog commencé indépendance Mamadou Dia Mamadou leeral la benn leeral bu kii. Mm-hmm. moom su ma yëg su ma xamee ne moom mooy bàyyi indépendance Sénégal. Mm-hmm. xam nga waaw mooy bàyyi indépendance Sénégal. Mm. moom jot pompe ñoo signé. ñoo signé acte la l'indépendance du Sénégal Mamadou Diagne moo ko signé. kooku borom xam-xam yaa ngi may dégg Sénégal yoo xam nañ ko. Mm-hmm. xam nañ borom xam-xam ñu xam nañ ko. moom mm-hmm. moo ko signé donc ñi xam ne liggéey rek moo fi tas toit bi dem nañu am nañu fi bàyyi bariwul mais dañuy liggéey pour organiser pour organiser mm-hmm. administration Sénégal ak Senghor Senghor tam ci la bokk. wax dëgg yàlla moom Senghor ànd di ko def Senghor ak Mamadou Dia ñoo ñoo créé Sénégal administration Sénégal kooku dañ ko reconnaître. waaw moo taxoon moo amoon rigueur xam ne ne réew rigueur lu koy def bañ a njëkk njaaj a fen a wax loolu def li ñu léegi actuellement politique ak yi administration bi dañ dégg ay luubal ay détournement yoo xam ne yu yu doy waar la moo tax ma wax la ci rigueur boobu tey ci administration bi kon amatu ci voilà mhm. ah, voilà voilà Mamadou Dia da doon bañ loolu mhm. xam na ne xam nañ ne xel ne léegi ak tamit nag réew mi léegi dama bëgg rek nit ñi changé mhm. te gëm yàlla léegi nit ñi ku ñu àndalul baaxoo ku àndal moo baax mhm. xool xool ji ci jub ak ci ci def dara loolu yàlla nag waxoon loolu daf ne kii liggéey nañ ko encouragé mhm. léegi nit ñi dañuy xool seen parparloo parparloo yi dafa ëpp parparloo yi dafa ëpp dañu war a toog nekk benn topp topp ki nekk ñu jéem a liggéey ñu réew yokk ay waxal ci gi ci politique itam euh, président Mamadou Dia ko doon bañ la euh, tey noo gisee ni réew mi doxee éthique amatul ci ci ci wàllu politique euh, tey moom li xew yaakaar naa ni kenn du ko wax kenn président Mamadou jaar tey yaakaar nga ni xëy na li ni réew mi doxee tey doon na ko neex bu fi newoon ba tey bu fi nekkoon loolu du am. Hmm. bu fi nekkoon réew mi réew dëgg ci siraatal mustaqiim ñu ngi liggéey jub nee naa la fi Mamadou Dia li mu gëmoon mooy liggéey liggéey jub gëm yàlla ah, liggéey am jom bañ a njuut njaaj loolu mooy defar réew. léegi léegi léegi léegi actuellement léegi li fi xew ci réew mi. Hmm. Ah, àdduna moom a demee noonu xëy na mu yàgg. xëy na at mi moo soppeeku. mais mais yaakaar nga ni ah, xëy na ñu ngi ciy def ay ñu ngi def effort parce que yenn saa itam ni ni yëf yi demee da ngay laaj sax ndax dëgg-dëgg ñu ñu war a xeex yenn yi ñu ngi koy xeex. xam nga ñu war a xeex yenn ñu ngi koy xeex. Mm. mais xam nga dañ naan des fois man damay dégg ñu naan président pré mais président mënul nekk fépp président bi nekkul fépp du génne du malaat. dëgg la nit la rek day teg ay day teg ay affaire am yoo xam ne nit ñi koy jaar. waaw ah, yenn saa tam mu teg ñoo xam ne xëy na wanañu ko seen bopp dëgg-dëgg. waaw c'est ça. Mm. waaw yenn saa yi sax ñu ngi leen naan te naan li mu def nangam li mu def nangam li mu def nangam mais mënul leen nekk fépp. Mm. nit ñi nag dañ doon yar Mamadou Dia nekk ak moom dafa doon yar. Mm. dañu dem këram ñu topp ñu jar ñu yar ñu. nañu bàyyi di ñu jubal bàyyi di def nangam bu leen dem ah bu leen dem. fenn bu leen kon looloo manqué ci politique daal eh, genre école de parti la woon bu muy doxalal boppam. voilà voilà voilà école de parti. am équipe di ñu wax man damaa toog nii ak ñoom Massène mën nañu Massène Mamadou maa mu ne man dem na ngeen liggéey liggéey réew mi te ngeen jub donc dafay yàlla dina yàlla dina na ñëw. Hmm. am na lu ñuy waxoon amoon na lu ñuy waxoon ñun. Hmm. Mamadou Dia. Hmm. dañ toog ak moom mu ne mu nañu ci temps yooyu ay xale ngeen. am ku mu leen tegtaloo tegtaloo koo xam ne seen morom la ak seen naata ko ku jub la ku baax la muy Moustapha Niass. topp lañ ci Moustapha Niass. ah ngeen liggéey bu doon liggéeyee réew mi jariñu te bu doon def yi si ñàkk fayda bu doon dem ci kër bi sukk bi drama ko defi yëpp hmm. liggéey leen seen liggéey bu doon ko defee yàlla dina ñëw hmm. yàlla yàlla li muy indi ci yow di ko jox moo gën li nit ñi di jox yàllaay joxe yàllaay maye hmm. ku la jox yàlla ko jox dafa gëmoon yàlla waaw voilà. Mhm. alors ñu ñëwaat ci moom président moo Mamadou Dia euh, génn kasom euh, ndax euh, jamono yi ca toftalu amoon na wér gu ko mayoon xëy na mu mën a taxawaat di janook askan wi bay bëgg a laaj réew mi. waaw génn bu mu génnee kaso bi. Mm. amoon na wér gu yaram bu baax ko yàlla joxoon. d'accord ba mu génne kaso bi boo ci la créé MC la créé MC. Mm-hmm. dafa doon créé M. MDA xaw ma su ma jumlee. Mm-hmm. après mu créé MSC créé partem di def campagne am di def campagne am ndax nit dem na fa région bu ne dem na fa wow nag wér na wax dëgg yàlla ba mu ñëwee ci la am Diouf jël jël jël ko ne la defoon ah ngir suñu borom la ak njuumte waaye léegi defaat naa la ngay citoyen bu wér. Mm-hmm. mel ni demaloo kaso mooy amnistie li ma ko mën a waxee daal. Mm-hmm. waaw ci dafay di liggéey créer parten mhm. pour wan nit ñi ne la mënutoon ci yéen Sénégal laa bëgg puisque amul amul sax doole jooju mais dina wane daal sama xolu bopp ne liggéey wër nañ ne lii laa bëgg réew doxee ko pour mën ñu mën a jariñ waaw lu wéroon na mais nag bi mu jëlee nag na nag nag mu jëlee nag nag ci la ci la ci la ci bàyyi ci la bàyyi activités yooyu mhm. ñu koy sekki di ko ziyaare ji mu toog këram di jaamu yàlla mhm. est xam nga ni moom dafa amul néeg boo xam ne ci këram jaamu yàlla la daan def. Hmm. jaamu yàlla daan def waaye dama togg ci néegam tëj di jaamu yàlla ba ni mu génnee àdduna man maa la wax loolu. mel ni ku dugg xalwa. maa la wax loolu jaamu yàlla dugg xalwa jaamu jaamu yàlla. mu ngi jaat dama ne dama ma gëmoo woon sax ne ñun sax dañ daan dañ doon jaawaanu ci moom yàlla la. man maa la wax hmm. Hmm. am nga anecdote boo ñu mën a nettali ci loola. maa man maa fekkee xam nga man maa ngi nii di wax ak yow. waaw. maanaam ñu doon dem di ko seeti ajuma bi ne. Mhm. ci ñii ñu ne dafa tëju. ca saal ba ñu génne maa ngi woon ci biir daan tëju di jaamu yàlla man kañ kooku ko maa ko te mhm. nekk na foofu. Mhm. di jaamu yàlla. mais maa ngi leen di ñaan maa ngi ñaanal réew mi. la wax loolu. alors digganteem ak président Abdoulaye Wade ak yeneen homme politique yi lan lan nga ñu ci mën a wax. bala ma wax loolu naa ko ci digganteem ak Senghor. waaw nga xam ne nitu yàlla may wax léegi dana nettali benn mhm. dafa génne dafa génne kaso ba. Mhm. ah Alaaji Moustapha Niass ñëw na ko mu ne mu oo oh, Moustapha ne ko Moustapha ah doo bëgg am mhm. ne ko ah Senghor mën Moustapha na ko moo ànd ak Moustapha li may wax nit ñi muy dégg Moustapha Niass may dégg mu ànd ak Moustapha Niass toog Senghor ñëw mu taxaw Senghor évité pour dugg ko ci mu ne muy Senghor tu ma c'est pas doomal accolé <laughs> ko doom mu Senghor ñëw accolade ko ut ko Senghor mu ne sama xarit nga sama wëlle nga. Mhm, ndeysaan maa ngi di la sant yàlla sama borom. Hmm. e naa ngi sant sax la ma newoon kii bi parce que la ma xam lu bari ci ba fa laa ko xamee. kon de Senghor waaru na keroog maa ngi lay gërëm de sant te jàpp lu la dara dara naa la léegi nag laa mënul jubóog yow ah li dafa am lu ci dëng ci dëng dëgg yow ci dëgg naa la xam nga kii nitu yàlla la waaw la lan na nekkoon réaction Senghor instant boobu. Senghor daal di kontaan daal di koy daal di toog waxtaan ak Moustapha Diagne ñu toog ñu toog waxtaan di ñuy wax après ñu mu dem. Mm-hmm. xam nga kooku dama la bëgg a wan ne Mamadou Dia nit yàlla la. dëgg la dama la bëgg a wan ne Sénégal maa ngi koy mu ngay dégg Mamadou moo di avant muy génn àdduna jéggal na Senghor. Mm-hmm. am na seen ci baat jégalu woon ni noonu. Mm-hmm. dëgg la rawal loolu wax wax nañ ko waxati ka alors yeneen homme politique yi fi nekkoon par exemple Abdoulaye Wade ku mel ni moom moo ko defendre ci procès bi euh, bi ñu ko tegee loxo ak ñeneen ñi fi nekkoon ci homme politique ñu ñoom ñëpp presque seen euh, Mamadou Dia autant pour amoon na ñoom euh, ay relation waaw par exemple Abdoulaye Wade dag nii sax ànduñu moom waaye da dëgg dëgg man duma ñu ku baax la mm. Abdoulaye Wade liggéey na ci réew mi vraiment liggéey na ci réew mi nekk na opposant kenn xamul ko dara liggéey bi ñu jëlee toile bi tam liggéey ci de li fi am infrastructure yi ñu gis am développement Ablaye Wade la nañu waxante dëgg. moo ko sumboo dëgg la moom it dëgg lañu wax. Mhm. waaw ñu ñaan ko te bët point yi nga gis yaa ak ñu ci bëri ak ak ci bëri yooyu ci àll bi Ablaye Wade defoon na ko defoon na fi lu bari yàlla nañu waxante dëgg bon bi Mamadou Dia ñëwee fii di def projet tamit Ablaye Wade nekk avocat défendre na ko. dañu waxante dëgg. Mhm. seulement nag nit mën na defaat doon nañ bokk idée di nga jum boobu sax mu jaar ni nga jaar mhm. ci le plan politique il faut être démocratique. Mhm. loolu rek la. alors justement bi bi président Ablaye Wade euh, yegsee ci boppu Sénégal doon nañu wax ne dafay réviser waat procès président du Dia loola ndax lu ñu sàkk woon la wala xalaat la bu jóge ci moom wala ay rumeur rek la woon. amoon na mais bu ñu ko xëyee président Mamadou Dia naka Ablaye Wade nee na. ah lañ la waxoon daal amul dañu dugg ñu def procès bi ñëpp xam ne li nga def li nga def nii li ñu la defal nii. Mhm. defuloo ko. mu ne daal di ne teg daal di ne leen nañ tudd yàlla ñu si yàlla ñu sant yonent bi ñu sant yonent bi mu ne ko Ablaye bàyyi loolu bàyyi ko. kon loolu xalaat la bu jóge woon ci président Ablaye Wade. waaw Ablaye Wade mu ne ko mu ne ko loolu baax na trop mais dama bañ ñu pale boo xam ne. ah dafay kii Senghor daf koy sécuyer hmm. wala mu sécuyer réew mi nañ ko bàyyi bàyyi tëg ci yëpp ci loxo yàlla hmm. biddaay dañ tëg yëpp ci loxo yàlla dañ bàyyi noonu hmm. nga xam ne nit yàlla la waaw ndax Senghor ba mu ko gracier 1974 euh, euh, gannaaw gi dañu amnistier euh, kon la xewoon noonu yëpp ci weeru avril atum 1976 waaw waaye ba tey teggiwul tuuma ci kaw président Mamadou Dia waaw mun ne nañ bàyyi noonu moo tuuma teggi na moom bu ko neexoon ñu def procès bi defaat procès bi dugg ni mais def na nañ bàyyi noonu def ci yëpp ci loxo yàlla bàyyi réew mi réew mi dina jugé wax mhm. na jugé nit ñi Sénégal réew mi xam-xam lañu mhm. borom ñi xel lañu dañuy jugé xam nañu moo tax mu ne nañ bàyyi noonu teg lépp ci loxo léppam yàlla la koy teg yàlla la koy teg mhm. léppam ci yàlla la koy teg nañ bàyyi noonu mais nit ñi xam nañ ne d'ailleurs d'ailleurs yàlla kii na yàlla ñëw na xam nañ ne xam nañ ne ku baax la xam nañ ku bëgg mhm. ce que xam nga ne Talla Sylla bu bu Thiès bu nekkee maire moo tudd na ko place de France mhm. place Mamadou Dia mhm. Macky Sall Macky Sall tudd na ko building bu mag ci dëgg Ndakaar waaw bon Khalifa Sall maire tudd woon na ko rue avenue Rim avenue Mamadou Dia Mamadou Dia yooyu yëpp dafa won yàlla day day ñëw yàlla day ñëw day won ne kii ku baax la mu ngi nii euh, nit ñi bëgg lañ ko topp nañ ko li moon def ànd nañ ci mhm. ànd naa ci man yàlla yàlla yàlla mooy def lépp mhm. loolu la nag doy waaw waaye ndax jàpp ngeen dañ uh-huh. doon xeex waaw xam ne ne fa yonente la uh-huh. yeneen homme politique yi lu mu sekkoon ak ñoom bala ñuy jàll ci leneen yeneen homme politique yi waaw ah ñu mu ànd la nag ñu baax lañu ñu bëggoon réew mi la ku ci mel ni ñoom jaraaf ndaw bu Kaolack dam si yàlla jaraaf ndaw ku ci mel ni ñoom ñoom waaw ku ci mel ni jaraaf dafa moo jiitu quoi mais ku ci mel ni ñoom Modou Diagne Modou Diagne instituteur ku ci mel ni ñoomin euh, ku ci mel ni ñoomin wal euh, Jojo Ndiaye mm-hmm. Joseph Mbaye Joseph Mbaye Tall ak ñeneen ak ñeneen ku lim juum. waaw jamono yooyu melul euh, ni yi melul ni yi waaye xeexante bi ci wàllu politique itam réalité la woon. waaw réalité woon. waaw mooy kooku nag politique yàgg na yàgg ci politique. Uh-huh. mais nan lay wax ma ma bala maa jeexal dama bëgg wax kenn ku mag koo xam ne yàlla bàyyi na ko fi yàlla ko yàlla wéral. amiin wéral fanam. wéral fanam. Uh-huh. jox ko jox ko mënoon a gi mu bëgg. Mm-hmm. muy Amadou Matar Mbow. Mm-hmm. waaw Amadou Matar mm-hmm. la woon. ah def na ci réew mi loo xam ne kenn du ko fàtte. Mhm. ñu ko ñaanal yàlla. kooku bokk na ci gouvernement Mamadou Dia. Hmm. yàlla dafa boole woon nañu ko yàlla boole woon na ko ci. waaw président boobu. yàlla boole woon na ko ci. Mhm. Mhm. li nga wax ni nag xëy muy dégg. ah li bokk na ci gouvernement gouvernement boobu. xam na li mu wax ni na ndax dëgg la dëgg moom xam na ko parce que ci ñi ko sosoon ci la bokk. mu ngi fi yàlla na ko may fan bu gudd. ak wér yaram. alors xeexante gi ci wàllu politique jamono jooju président Mamadou Dia naka la ci taxawee woon euh, ndax wax nañu sànq ne ci éthique la daan dox waaye yooye jamono itam am na yu daan xew ci wàllu politique. mais xam nga politique bi xeex politique bi c'est parti bi la benn parti moo fi nekkoon. Mm-hmm. ñoo doon xeex seen biir. Mm-hmm. maanaam ay clan la woon ay clan ki ay yu ma xamul yu xeex seen biir. boo ko am lu njëkk parti politique bi parti unique la woon mais bi ñëwee Mamadou euh, Abdou Diouf. daa koy ñaanal yàlla. Mm-hmm. yàlla guddal fanam wér gu yaram moo fi indi. multipartisme parti waaw multipartisme moo ko fi indi démocratique vraiment moo ko fi indi quoi moom tamit liggéey réew mi la vraiment. Mm-hmm. ci ñi liggéey réew mi ci la bokk gis gi gis nga liñ ko tuddee. Mm-hmm. et eh, am na mënoore liggéey na réew mi bokk na ci ñi ko liggéey wax dëgg yàlla. loolu bu fi indi métti mais bu njëkk ba parti unique la woon dañu ngi xeex seen biir. ñoo nekkoon ci seen biir mais puisque puisque dafa am ci parti bi. ci parti bi mm-hmm. amee. Mm-hmm. parti dañuy xeex seen day xeex seen biir. Mm-hmm. kooku moom mënul ñàkk politique la. waaw tibbante tibbante yi am na lu ci mag ñi jot a jot a rek mooy xas ci réseaux sociaux yi. xas nit wax wax tooñ nit saaga nit yooyu yëpp dañ ko bàyyi. Sénégal benn lañu koo fi saaga sa bopp nga saaga. Mhm. sa bopp nga parce que ñun ñëpp benn lañu. Mhm. ñu bokk maam ñu bokk maam mhm. bokk lépp. bokk diine bokk yëpp. nañu nekk benn. te mu président mu ne daan maam wax. réew mi bu ñu nekkul benn. bu ñu nekkul benn di développé nañ nekk benn. bokk benn xol liggéey réew mi réew mm. lii daal mooy développé bokk na ci ci li MSU euh, njàmbaas ci définition wam mooy. Euh, wala dénomination wam unité MSU. voilà mouvement pour le socialisme et l'unité. voilà voilà mm-hmm. est-ce que tey président Mamadou jaa jàpp ngeen ne euh, ni ñu ko war a xamee ni nu ko war a fësalee ci Sénégal demee na ni ndax tey ndaw ñu bari xëy na dañ koy dégg boo gisee saa yu nu ci waxee nit ñi euh, jàpp ne euh, xam nañ ci lu nu xamutoon euh, loola dafa mel ni luy tekki ne daal xëy na ni nu ko war a fësalee ni nu ko war a wonee askan wi ak surtout génération yi fi ne yu ndaw yi ak yi ñëw dafa des est-ce que jàppoo ni war nañu dem au-delà tuddee ko ay building ak i rue wala yu ni demee xëy na def loo xam ne daal ñay ñëw ëllëg it daanu xam ne kii moom bokk na ci kàngam yi nga xam ne fii lan bëggoon yóbbu Sénégal wala taxawaay wi lan amoon démb jàppoon ne yeyoo na lu ëpp lii lii ñu ko defal tey. jërëjëf question bu rëy nga ma posé. Mm. question bu baax nga ma posé bu rëy yàlla yàlla tey. Mm. bon euh, li nga wax léegi am na. tur nañ ko bind tur nañ ko lépp boo gisee moom du ñu activité ren doxul feebar bee tax. koy moo tax. Mm. parce que ñu naan def chaque année dañ kaa ñaanal. te yëpp ñu baax ci réew mi yëpp ñaanal ko def tamit ca jàkk ci jàkk yi euh, Mermoz mm-hmm. ñaanal ko def ay conférence bi yooyu bu soobee yàlla yonent bi incha rabbi mm-hmm. ko bi dañ ko def ko def mm-hmm. bon nañ def benn colloque bu rëy benn conférence bu rëy ba Mamadou Dia ñu ngi koy préparé ñu ngi préparé colloque bu rëy ak conférence parce que dañ koy préparé dafa beneen hommage bu gën a rëy ñu seet ñu koy defee bu boobaa yow incha rabbi bu soobee ba ci ñi ñuy jiite ñi jiite cooy man ci laay asum tànk tey nga bokk jëm ci bokk bu soobee yàlla mm-hmm. waaw ñu ngi koy ñu ngi koy defar. Mm-hmm. li nga wax léegi dana am dina am. incha mm-hmm. rabbi mais dañ ko wax sax président Macky Sall mais puisque feebar bi la. Mhm. activité yi yooyu te tout ça xam nga ne jamono ni mu toll léegi. Mhm. Euh, ñu ngi koy préparé. Mhm. ñu ngi ko jaar fi ñu ko a jaar. yaakaar ci président Moustapha Niasse président Macky ak ñeneen ñeneen ci réew mi ko benn colloque bu rëy xam ne dinañ ci waxante Mamadou Dia. mais pour le moment ñu sant yàlla. parce que tëral nañ ko building. tëral nañ ko place de France. am nañ ko chaque année dañ kaan defal dañ kaan dañ kaan ñaanal. peut-être hmm. Mamadou Dia Sénégal du ko fàtte incha allah. Hmm. duñ ko fàtte de. Hmm. alors xëy na fi ñuy jeexalee papa mooy wax ci nag ay jikko yi président Mamadou Dia xëy na am na yeneen yu bari yuñ gën a mën a jukki waaye waxtu wi moo ñu ko dul may euh, léegi nag tey ndaw ñi nga xam ne ñoo fi ne ak ñiy ñëw boo amoon loo leen di tënkal teg ci président Mamadou Dia ne leen yii ci ay jikko wala yii ci ay doxalin bëgg naa ngeen jàpp ko roy ko yan lay doon. gannaaw jëflante nga ak moom Maodo bi. jërëjëf jërëjëf question bu rëy la. ndax mm-hmm. Mamadou Dia président Mamadou Dia mm-hmm. exemple la ci Sénégal mm-hmm. ñun am nañu kuréelu ndaw am nañu kuréelu ndaw ci parti bi ndaw yu amaana ay étudiants yëpp xam ni liñ leen di di leen leen di jàngal jàngale leen ngor jàngal leen su jàngal leen liggéey jàngal leen lépp war a jariñu réew mi mun Mamadou Dia ci loolu la jàppoon du gaayoo du xaste dara jéggale jikko yonent bi la yore woon hmm. loolu lañ bëgg ndaw yi am ko ñu jéggale liggéey nekk benn ñu lonko Sénégal benn bopp la te moom xara ñaar ñu àndee gin naa ci Rasulullah ne Sénégal dina développé hmm. bu ñu àndee hmm. gis nga dañu ci effort bi rek ci football bi yàlla maa ngi nam dañu ànd lëkkaloo yàlla maa ngi nam yàlla day na boppam nañu ànd liggéey nekk benn bàyyi xas bi bàyyi ŋaaye bi bàyyi saagante yi mhm. bàyyi wax loo xam ne ni ko gis gis rek xas ko yàq deram nañ bàyyi loolu yàlla bugg ko yonent bi bugg ko mhm. sëñ Tuubaa bugg ko moom Alaaji Maalik bugg ko benn sëriñ bugg ko mhm. benn suñu benn kilifa bugg loolu nañ nekk benn buñ ko nekkee Sénégal dina avancé eh, ñu topp ki ñu war a topp du du ma ne nag at du am Mm-hmm. loolu ba àla kule yàlla day am ku nekk ku ku nekk sa nga nekk day bokk mm-hmm. loolu moom dina am mm-hmm. waaye boo bokkee na nga bokk ci moom loo xam ne ah ñu njëriñ la ñu waxtaani réew mi loo xam ne développement la ñun ci sàlloon laay digal xale yi ñu bàyyi ngaayee dëgg am benn njëriñ xaste beeg génn di yàqal di saagaar di sànni xeer ñëpp amul njëriñ amul naan njëriñ liggéey réew mu yokk loolu laa leen di digal moom président Mamadou Dia ci jëflanteem ak nit ñi lan la ñu ci mën a jàpp président Mamadou Diagne ñëpp la amaloon ñëpp la ñëpp la amaloon euh, lu baax. loolu mm. lu baax. jigéen la woon këram grand chef gel ñu fi nekkee ñu ne naan chaque àjjuma du ko ziare di ko seeti di fekk nit ñi bari ñu muy seet mm. jëflante nit ñi baaxoon nga demoon nañu sax à l'époque di bëgg ko booleeg sëriñ si dégg nga loolu. Mm. nit ñi dox diggante bi waaye ñu ko booleeg sëriñ si naan dafay dafa contre dafa contre sëriñ beeg dafa contre. wax ak sëñ Fallou nangam nangam mais sëñ Fallou bu jigi xam na parce que président Mamadou Dia bind na ci benn bataaxal boo xam ne si journal mhm. dans les années cinquante ci Serigne Touba ñëpp am nañ ko am nañu bari ñu ko am bind nañ Serigne Touba bind bu rëy la bind Serigne Touba mhm. ñëpp dañuy yéemu xam nga ñu wax naan dañu kon dañu doon yàlla yàlla atane leen waaw bind nañ Serigne Touba bind bu rëy man ñuy ko photocopie naa ci lu bari distribué ko kon xam nga loolu amul nit ñi ñoo yàq nit ñi ñoo yàq loolu laa wax. Mhm. nit ñi lañ bàyyi yàq bi te jéem a ci liggéey réew mi. Mhm. amoon na kenn xam yàlla jullit la woon. Mhm. amul kenn benn nit diine bu si Mamadou Dia bu Mamadou Dia fonkul. sax ba église sax la église bi càndum càndum. demoon na càndum laa bu càndum. waaw demoon da nit diine diine yëpp. nit àqal la. nee naa la président Mamadou Dia man xam naa ne nitu yàlla la man xam naa ko mhm. maa ko teg bët gis naa gis naa muy jaamu yàlla. Mhm. man maa waxu noonu. Mhm. ma kenn du ma ko nekk te mën naa ko waat ci kàddu gi. rawal dëgg la. waaw léegi dama bëgg xale yi roy ku mel noonu. réew mi dox réew mi sax xase du ko doxal saada du ko doxal. ñaay du ko doxal. ak def yu bon. ah nañu nañu nañu juboo nekk benn réew mën a dox. loolu daal am na solo jërëjëf euh, Mamadou Diouf euh, sunu papa wala sunu maam euh, doon àndandoo président mhm. Mamadou Dia bokk ci partem bi di MSU nekk itam consultant ci wàllu économie rurale nga nekk plénipotentiaire u parti boobu di mouvement pour le socialisme et l'unité bu président Mamadou Dia taxawaloon ngeen bokk ci Benno Bokk Yaakaar ni nga ko waxee amoon nañu te dalal la ci démb ak tey ngir waxtaanee ko waxtaanee itam yenn ci ay jéego yoo xam ne def na ko gis-gis bi mu amoon ci réew mi euh, méngale ko tolluwaay réew mi tey xëy na waxuñu lépp waaye yaakaar naa ne lii nu fi jukki euh, mënees na koo téew ndéegum ba xëy na ñu amaat leneen ci président Mamadou Dia ndax la ñu mën wax ci moom bari na saa ñu dalalee nit wax ci moom ni ma ko waxee sànq dañuy dégg lu bees ci ci moom président Mamadou Dia di ñaan yàlla mu yokk leeram euh, dal di kay xare na ñu leen di ñaanal tam yéen ñi mu fi bàyyi rawatina ak sunu maam Massène ñaa yàlla gën a dëgëral taxawaay wi ba xëy na ni mu bëggee woon parti bi dox doxee noona ba keroog ngeen koy teg ci loxol ñeneen jërëjëf Diouf ñu ngi lay gërëm di la ñaanal kenn la jàmm jërëjëf jërëjëf seen émission démb ak tay la woon ci réew mi fm ñu gërëm jaawa jàll mi ne woon ci jàppandal gi gërëm leen yéen ñi tam ñi doon déglu Fatou Thiam Ngom moo fare woon ci kàddu gi mën ngeen teewluwaat émission bi euh, ci suñu chaîne youtube réew mi officiel dig daje beneen dimanche incha allah ñu waxtaane leneen ak keneen jërë ngeen jëf ñu yendoog jàmm